ñoo ngi wax asalaamaaleykum waa Malekounda ñu leen di nuyoo fii ci Kigali muy capitale Rwanda. donc ñu ñëwoon fii euh, defoon fi une semaine ànd fekk euh, benn délégation boo xam ne bii commission chargée de l' environnement bu conseil municipal bi ki ko jiitee di Assane Diack nekk moo ko moo ci nekkoon directeur de cabinet du maire nekk ci. waaye huit président comité de salubrité yi nga xam ne jot nañ leen a monté Malicounda tamit nekk ci muy comité de salubrité bu Pointe Sarène bu Nianing bu Warang bu Mbaling waaye bu Malicounda Bambara Saly aérodrome ak Saly Médine ak Carrefour Malicounda bokk ci waaye bu Malicounda séeréer ci amoo yi ko composé yëpp ak Malicounda wolof amoo yi ko composé yëpp ak falox président comité de salubrité yooyu lañ fi àndaloon xëy na yàlla mën nañoo suturaal bu ñu fiy ñëwaat yoon

lu bari nan lañ ciy xoolee nan lañ ciy sukkandikoo ñun pour que ñun tamit bu ñu amoon lu ne mel Malicounda tamit ñu am lu ko jege donc loolu nag nekk moo nekkoon solo voyage bi ah ñu tàmbalee woon ci dem ci maire maire du dëkk bi nga xam ne mooy ngi maire mooy maireu capitale bi mu recevoir ñu boole ñu technicien yi wax dëgg yàlla yi dañoo mel ni ñu nag Sénégal benn lañu ci wàllu mën a dalal gan ak ci mën a toppatoo gan ñu ciy jaajëfal waa Kigali maire bi ak président bi ak ñëpp. Euh, ñëw bu njëkk bi bis bu njëkk bi ñu gisee ak maire bi ñoom ñu wax wax ñu li nga xam ne ñoom bëgg nañ ko liggéey ñoo ngi koy liggéey depuis 1994 ba tey te ñu bëgg koo continuer ba fii ak 2050 liggéey boobu ci lan lañ ko bëgg a tënk ci lan lañ ko tënk ci ban plan ñu wan ñu ñu ngi tuddee schéma directeur loolu ñoom ñu wan ñu ko muy mébét boo xam ne bii bëgg nañ fii ak 2050 ci kanam yi nekk dëkk boo xam ne bii ku fi ñëwaat dootoo ko xàmmee ci ni mu mel tey bañ koy coow loolu nag nekk lu am solo loo xam ne li dafa sukkandiku ci ñetti bànqaas benn bi njëkk mooy ñoom bëgg nañ ki gali nekk dëkk bu gën a gën a tee set xam nañ ni moo gën a set ci Afrique mais ñoom xeeb nañ ko loolu nag liggéey boobu nag fañ koy sukkandikoo mooy fexe ba population bi yëpp impliqué wu ci li tàmbalee ca dëkk ba gën a ndaw ci biir kër ya génn ca quartier ya ca village ya ci commune ya nekk ci àll ba ba ci commune bi ci nekk ci biir dëkk bi ba ci président de la république ñëpp impliqué wu ci ñuy def li ñuy tudde cleaning day mooy li président Macky Sall di def tey ci Sénégal waaye ñoom ñu koy def defin boo xam ne nag daanaka kuy doomu Kigali rek kuy doomu Rwanda rek obligation la ci yow boo ko deful ala alamaan sax day dal sa kaw sa setal yi ñuy def fii ku ci bokkul dañ lay alamaan loolu may ne leen tey mu doon dëkk bu set wicc mënoo dox ci mbedd yi ba gis xobu garab doo dox ci mbedd yi ba gis da danga naan sax ndax fii am na suuf suy nekk ci tali doo ko gis pepp suuf ko gis ci tali waxuma laa nag ay salteeg ak leneen ak leneen mu nekk royukaay ci wàllu cet waaye ñoom am na cet googu beneen niveau bu ñu ko bëgg a àggale fii ak 2050 mu nekk royukaay na nan la ci Malicounda bëgg a royee dinaa ci ñëw plus beneen point bi nga xam ne ci la Kigali sukkandiku pour bëgg a defaraat dëkkam ba tey di mu nekkee royukaay mu gën ko nekk fii ak cinquante mooy mu nekk dëkk bu verte bu ngeen xoolee film yi di ngeen ko gis góor googu muy monsieur François présenté nañ ñu ko nee na moo fi njëkk a samp cocotier ak palmier nee na yi xamuñu woon loolu dëkk yu mel ni Sénégal dëkk yu mel ni Côte nga xam ne dañoo sës ci géej fa lañ jëlee seeni i cocotier ak seeni i palmier ñëw samp ko tey Kigali ba boo xoolee Kigali yi dangay foog ne fi la cocotier ak palmier fi la fi la cosaano te fekk demewul noonu dañ koo jële ci suñuy dëkk ñëw samp ko rafetal seen dëkk ba tey lépp mucc ayib verdure boobu tey foo dox ci Kigali yi nga koy gis beneen point bi nga xam ne seen dëkk bi bëgg na ko sukkandiku pour nekk dëkk royukaay gën a nekk dëkk royukaay mooy dëkk bu am sécurité loolu nag tey Kigali fu la amul tëj nekk amul dara foo fàtte sa bagage boo fa defee waxtu bàyyi ko fa boo dellusiwaatee fekk ko fa doo fi gis sàcc doo fi gis agression doo fi gis nit ñi ñu rey yu bon yooyu ñuy dégg léegi te mu bari ci suñu dëkk amu fi. dañ koo teg ci ay compagnie de sécurité yoo xam ne dañ koo samp commencé ci biir dëkk ya dëkk yi visité nañ ay dëkku àll waaye waa dëkk ba ñoom ñooy cotiser di fay seen i policier di fay ñi nga xam ne ñoo leen yoreel seen sécurité dëkk donc mu doon lu am solo loo xam ne lii tamit sécurité état kese moom moo mënu ko mais askan wi ñoo ci war a jàpp li tàmbalee ci kër yi di tàmbalee ci village ba ci biir dëkk yi tey jii fooy dox ci gigal sécurité la police am na sécurité bu muy def waaye ñoom dañoo am ay compagnie privé yoo xam ne dañ leen di fay ñu leen di assurer la sécurité ci wàllu ceeb lay tambalé wala bok avant may dem ci ket plan bobu di schéma directeur bi nga xamné ci lañ tënk teunk seen liñ bëgg yëpp loolu Malicounda bëgg na ko bëgg nañu ak direction de l'urbanisme bi nek Dakar ñom déjà sollicité nañu pour loolu ñu lekkalo ak ñom pour ñu am benn plan directeur bo xamné ne Malicounda pépp suuf bu fa nek rek xam dinañ ko tracer redd ko ba nga xamné ne lu fa war a nekk ak 2030 dañ koy xam donc ñun schéma directeur biñ bëgg défar dañ ko bëgg jox ben horizon 10 ans ci kanam ñu bëgg ko évaluer en fonction li ñuy am ci résultat ñu xool nag ban projection lañ koy ñoxaat wala boog plan directeur d'urbanisme bëgg nañ ko Malicounda boo xam ne bii dinañ ko tracé Malicounda yëpp nga xam ne fu ñu war a def école fii ñaar fukki at dinañ ko xam ñu bàyyee ko fa ne lii pour école la fa ñu war a def dispensaire wala hôpital fii ak fanweeri at dañ ko tracé ni lii hôpital la ba kër àdduna di tukki kenn waru koo mën a dagg def ca kër fi ñu war a ay dëkkuwaay ñu xam ko fa war di bayee ñu xam ko fa war a di defee élevage ñu xam ko infrastructure yi nga xamné ëlëk ak sibir war nañ ko mëna am ñu xam ko ñu xam ban place lañ koy def mu nekk plan directeur bo xamné bi dañ koy tracer mu nekk sunu sunu tableau de bord bo xamné bi réalisation bu bëgg def fii ak nangami at day fekk loolu prévoir nañ ko ba xam ko. six jours yi ñu fi nekk ñun délégation bi bokk nañ ci waxtaan xalaat ci xëyna na bu ñu delloo nag jël ay techniciens yu ñu ci jàppale pour que ñu rëdd ko nañ ko war a rëddee ca norme yam war a tegu donc leneen li nga xam ne tamit ñoo ngi koy xool ci kigal yi bëgg ko incha allah. bu ñu demee Malicounda ñu bokk ci roy mu ci wàllu cet heureusement président comité de salubrité yi lañ fi àndaloon tey comité de salubrité yi am na ci yoo xam ne yi ñoo ngi fonctionné comme ay GIE mais am na yoo xam ne tey jii amaguñu fonction GIE comité de salubrité yi nekk diggante point Pointe Sarène Nianing Warang Mbaling nga xam ne yàgg nañ ci ci loolu ñoom am nañ expérience ba tey jii ay GIE lañ bëgg nañ nag comité de salubrité yi ñu def dans le nord ñu nekk ay GIE parce que tey fii ci Kigali ay GIE ñoom ñooy nettoyer dëkk bi. beneen volet bi ci topp muy environnement bi muy nan la ñuy fexee ba sunu commune verte je crois que man jàngalekat laa woon euh, jaar naa ci njàngale xam naa ne am na programme bu am solo boo xam ne bii gouvernement bi amoon na ko ñu woon ko programme de formation d' information sur l' environnement mu nekkoon forma programme boo ne bii ba boo amee école yi macha allah bari woon na garab xale yi sax commencé woon nañ leen jàngal seen kër yi nan lañ fay war sampe ay garab toppatoo ko

mais ak su Malicounda bi tamit euh, ba Mali croisement Malicounda ba commune ba tamit gis nga liggéey bañ fa tàmbali ci wàllu espace vert bëgg nañ ko renforcer boobu tamit ba mu gën a fes ba mu gën a baax euh, ak su Faloox ba Kër Balalo ci rond point Kër bu bees boobu tamit bëgg nañ mu nekk espace vert boo xam ne bii référence lay doon donc je que loolu mooy li gën a primaire li nga xam ne wala la a tàmbalee mais ñoo ngi am daal yéene ci 10 ans suñ commune nekk commune boo xam ne bi boo fa duggee di nga gis ne set na waaye di nga gis ne verte na donc beneen volet bi avons wàllu sécurité tamit de investir donc nos plan d'action bi nous avons dañ donc un volet sécurité ku avons xam brigade de proximité euh, de gendarmerie de proximité nous travaillons travailler en étroite collaboration avec les commandants de brigade pour que village nous ñu la sécurité pour que ça qui fay am agression y fay am ak banditisme nous ñu même buñ nous jël ay société privée pour les ak gendarmerie yooyu ñu xool nan pour que suñu sécurité ñu renforcer donc benen bi ci mujju muy zone économique spéciale bi nga xamné ne gis nañ ko fii Kigali japp nañ né Sandiara def na lu ni mel te macha allah am réussite bu jot am da ñu waxtaan ak maire wu Sandiara pour que ñu xol ci suñu commune déjà xalaatoon nañ ko ci ba doon ci waxtaan ci conseil municipal bi mais ñu xol ni ñu ko jëmale ba véritablement ñu am euh, zone économique war nañ ko mëna am suñu commune parce que am nañ soufam donc lolu nek ay volets yo xamné dal déjà yu ci bari tambalé won nañ ko xëy voyage bi daf ñu permettre ñu renforcer Nous ñu gën cee am lisibilité ñu gën cee am beneen xam-xam ak beneen gis-gis bu bees boo xam nous buñ ko yóbboo boole ko lañ amoon am nañ yaakaar ne résultat war na am ba ak commune bu set wicc gën set ci Sénégal waaye mu nekk commune bi gën verte ci Sénégal waaye mu nekk commune bi nga xam ne moo sécurité ci Sénégal commune boo xam ne tamit commune nga xam ay investisseurs privés ñëw fa investir véritablement ba commune ba jëm ci kanam programme bi li tax mu amal solo malikunda nak moy ngeen xamne malikunda station balnéaire bu bees bi président Macky Sall bëgg tabax ci Sénégal Pointe Sarène lako bëgg def Pointe Sarène bok ci malikunda donc ñun tey jii gis nañ ne Kigali ville touristique la tourisme moy sen première économie té liko indi du dara bu dul dëkk bu rafet rek nee xol motax moo ñu naan Kigali une ville propre verte et sûre donc malikunda nak comme dañoo am ambition abrité première deuxième station balnéaire après Saly donc ñun war nañ mën a nag suñu commune cette cetaay go xam verte verte go xam ne am sécurité go xam dina tax ba boo ko tuddee rek ñëpp am envie ñëw Malicounda visiter ko donc loolu tamit beaucoup na ci li nga xam tay, tey am na solo suñu voyage bi war nañu ko jàngat nañ ko ci donc loolu rek laa bëggoon a wax ci ay kàddu yu gàtt euh, di santaan ñëpp daal di joxante rendez-vous inshallah, bientôt à Malicounda pour que suñu plan d'action bi ñu mën ko dérouler Thank you.